Saly looy tëjee looy tàggoo et puis ma laaj la leen itam rek nga gàttalaale ko maanaam li nga jotagoo tëgg est ce que am ce que lépp ci benn journée lay doon wala ñaata journée nga ko fas yéenee def. waaw wax ne auzu billaahi mina seytaani rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi lancé appel sama mbokk Bawol Bawol yëpp di wax ne man couleur Bawol laay défendre man doomu Bawol laa maa ngi dëkk dëkk bu ñu naan Lambaay Ñaxab. Lambaay Ñaxab laa Ñaxab waaw. maa ngi wax sama mbokk yi nañ ñëw jàppale seen rak seen doom mhm. ñun lu ñu am Bawol lañ ko yóbbu mhm. Ndakaar dañ ko def ay tool di ci bay maa ngi wax nañ ñëpp képp kuy bawal bawal bàyyiwuma kenn di wax ne nañ ñu jàppale ñu te xam ne ñun xale lañ am na lu ñuy bëgg te bañ di lu nit ka mu lu dul fa mu dëkk te ñun bawal lañ dëkk moom la ñuy défendre kenn ku ne sa da ngay wax ne day woo dëkk bu mu dëkk waa bawal nañuy jàppale seen doom yi ñun amuñu lu dul bawal beneen bi ci topp maa ngi wax bàyyi jili borom léegi-léegi lii nii ne ma ko ëmbal ko bu baax a baax bàyyi jili borom léegi-léegi gis nañ ñaani bu baax a baax ñi ngi wax ne ñi ngi kontaan bu baax si yax ndigal seen gàmm gin gàmm woon su yi bële passé mhm. ñaanal nañu fa ñaan yu am solo ñu ciy kontaan bu baax di wax ne ñaani gis nañ ko waaw sëñ Abdou Karim Mbacke nag moom képp xam na ne man ak moom moom waaw nit ak doomam la daal waaw mu may ñaanal di ma kàttanal di ma dooleel mhm. waaw bu may wax nag sama mbokki bool bool yi comme li ma wax sànq rek mhm. mbëri yi ma tëgg nag aw ma seen fay ndax wax dëgg yàlla man ak ñoom ay morom lañ xañ na dañuy jàpp ne sax ñeneen ñi maa leen mag mais ay xale lañ maa ñoom ñoom maasé ñun yoo xam ne nañ bokk ndey bokk bàyyi di fonk rendez yi nga xamee ne buñ ko amee war a def face nañ koy fonk xam ne ñun ñu bokk ndey bokk bàyyi ndax ñaanuma yàlla benn doomu di ma woo téléphone mu bañ a yëkkati sama téléphone di bañ laa wuyu mhm. su ma sañoon bu ku ma woo ma wax ak yow mhm. ku ma woo itam teew jëlu laa itam na nga ne man du saar boobu man ñëpp laa bëgg di waxal xañ na nag jamono day toll foo xam ne su ma seen waxal ñëpp. Mhm. mais ñi ngi wax daal waaw beneen bi ci topp mooy mbaytin mi ak dab ñoom ñooy bëre grand combat bi ci tournoi bi. Mhm. waaw ci yankaaw ak albarka kayra ak kaaw gurne ak yeneen booy yu ci war a bëre. ak caatu daaw dafa xaal. Mhm. grand combat mbaytin ak dab daan ñoo koy bëre. beneen deuxième bi mooy Koña Koña 2000 ak Ronaldinho ñooy bëri journée bi mm. di wax ne nag waa làmb ñi ngi tàllal loxo ñëpp mm. ñu gën ñoo ñaanal dooleel nu sponsor yi ñëw ba li bëgg a liggéey ñu liggéey ko mm-hmm. am na yu ñuy mm-hmm. nañ ne production ñun amateur lañ nekk nañ présidence din amateur deux ans mm-hmm. relève bu fi nekk di làmb bi muy door ba fi mu toll xam nañ ko ñoom bayti ñi seen bappat ñoom Balla Gaye fi la fekk premier combat ba deuxième combat ba kenn ku ne grand combat bi te itam di wax ne waa làmb dañ ma bàyyi ak sama staff bi ma àndal ku mel ne grand Serigne mm. euh, grand a Paul alaaj Serigne Faye alaaj seen sama xarit nga xamee ne maa moom guddeeg bëccëg ñooy ànd waa di nuyu ñëpp ñoom Kaana mm. waa di wax ne ñaanal nag sama waajuru góor ak sama waajuru jigéen suñ borom bàyyi leen fi ba naal yi bëgg a liggéey ak ñoom ñu ko di wax ne nag képp koo xam ne ñakk nga yaay itam ñu ngi lay wax ne la ñu ngi lay ñaanal suñu borom mu fa mu nekk fa mu tëdd mu rëjul waaw fi mu jóge di ñaanal sama mbokk bawol bawol yëpp nag di wax ne li may tëjee daal mooy mhm. maa ngi si woo sama mbokk bawol bawol yëpp man bawol rek moo ma ñor leneen ñuru moom gaa yi noonu la fa demee woon ah tey idaali ñu ngi la woon comme ni ngeen ko xamee ñu nuyu Sénégal yëpp rek di balu ñëpp ak lu ngeen fi dégg nag muy lu wàcc yoon rek jàpp leen doomu aadama moo matul muy ci mbëri muy ci ñi fi wax ak ñun ñu yor micro mais suñ sañoon lépp lu fi wax rek njëriñ lay doon pour Sénégal mais dañuy waxaat rek encore une fois duñ tàyyi di ko wax mooy ki jiite réew mi ne gën a gëstu ndawi réew mi mook gouvernement am parce que loolu lépp a mën a jëm ci kanam kenn dootul mbëkki ndax mbëkk daa maar balaa nga koy xam nga boo sàgganee moom leneen la ca fek kon euh, loolu daal rek ki nga xam ne maag yow ñoo ko bokk te mën nu ko séddoo muy sëñ Cissé sëriñ Cissé muy sëñ Babacar Si sama xarit sama sëriñ maag liiru jaan ñoo ko bokk <laughs> waaw di nuyu Abdoulaye Ndiaye ak ba ak ak ak Salba ñi nga xam ne maam dañ may jàppale bu baax maa leen di bu baax a baax a baax liiru grand bi nag nee ko ah neel sëñ bi ñoo ngi ànd maag yow ñëw foofu noonu <laughs> ak <laughs> Babacar sëñ Cissé suñu waay la waaw Fouta waaw di acca jóg waaw jóg leen dëggantaan jóg leen ngeen ngeen ngeen fotow